xam nga mbonuk raw gàddu daal loolu la ñu seetlu ak élection nii la terrible déggoo ma de yow ab list boo xam ne dañu ne majoritaire ba bokkoo leen dégg nga loolu suppléant yi yéenay jàll waa Benno Bokk Yaakaar ñu ne leen yéen seen suppléant doo leen jàll seen majoritaire di ngeen jàll. waa Paasan. loolu amul fenn ci àdduna. ngeen élection député yi. élection locale. commune bu golf déglu ma de commune bu golf. commune bu golf ak commune bu Njaareem Limaamulaay njaar kii golf ak Sam Notaire. mais sous préfet bi fi ne woon da leen a éliminé woon. laaj ma lu tax. seeni suppléant lañ ne matul. c'est parce que gars yi dañ naan suppléants yi bu matee dix rek gars yi bindal leen liste incomplète dàq leen ñu xeex a xeex a xeex ba ñu ne dem leen ngeen mottali gi seeni suppléant impôt domaine xaw ma mooy chef cadastre bi xaw ma inspecteurs yëpp soppi nañ leen ay politiciens ñu ngi nii Aliou Sall nag pataaralam nga génn na ca barki dee bu la fii ci ravin nee na duñ bàyyi mukk opposition bii di taal géejawaay réew mi moom réew mi moom non non non bëggu fi bagaay bete ko moom réew mi bés bi yéen a kaay ci waaw kay un an au pouvoir au Niger mi ngi nii dégg nga de Bazoum waaw mi ngi nii. je ne suis pas un valet de la France. ah yow de uute nga ki nga xam ne ndeysaan moom préfet la dégg nga Abdou Fall il faut suivre en classe voilà demal demal demal. intéressé wuñu waaw kay. enquête yéen rek. nee na la day com combattre franc CFA day kan continuer combat au moins moom. jàmbaar la uti keroog ba Abdou Diouf di daanu. waaw le professeur Abdoulaye Bathily di expliqué. ñu ngi nii. Hmm. billaahi. ndeysaan. fekk Abdoulaye Wade ci jamonoom dërëm yoratu. Hmm. faaleetuñ ko kippeetuñ ko snobe ko. Hmm. allahu akbar mooy joxe nguur de Serigne Diop ca jamonoom maître Ousmane Ngom Jean Paul Diaz gis nga ko ci jamono ji dafa am ñu waaxu woon rek ànd ak Ablaye Wade ca jamono joojee nag am ñoo xam ne dañoo bàyyi Abdoulaye Wade rek dem ànd ak Diouf am na ñoo xam ne ndam du leen fekk ci bërëb waaw waaw ñoo ñàkk ñaan danoo xeex ak yow xeex ak yow xeex ak yow mbir mi des ñetti fan wala juróom benni weer ña nekk ca nguur ga woo leen génnee leen ci yow bul mer léeg-léeg nga gis ay responsable yoo xam ne ndeysaan nit day transhumé jóge ci ñoom affaire bi def leen feebar fekk am na ñoo xam ne yàlla moo bind ci seen i jë ne duñ ay nitu ndam te buñ demee après dañuy ñëwaat de mais day fekk ndam lay am ba pare gars yi négocier waxtaan ak ñoom ndeysaan ne leen non soo see sa waay la da ngeen yàgg yéen ñaar ànd ngeen juróom-ñaari at xeex affaire bi dellu siwaatal ñu daal di dellu siwaat jëlal non non mais jëlal mais ndam li du ko fa fekk dama yàlla moom moo leen bindee noonu déggoo ma de ay jamais gagnant lañ xam nga jamais gagnant ñoom ndam du leen fa fekk ñoom ñoom ndam yàlla moo bind ne ñii ndam du leen fi fekk déggoo ma de Macky Sall dernière minute am nañu ko ba Ablaye Wade dernière minute am nañ am nañu ko ba Abdou Diouf ci boppam dernière minute am na ñoo xamante ni nii ba muy ñëw. ca ca ca Senghor bi mu ko jox am ñoo xam ne dañ ko gee doon daw bañ ba tëdd ci suuf. loolu yàlla moom moo koy def gis nga professeur Abdoulaye Bathily nag noonu la noonu la. noonu la noonu la noonu la Abdou Fall. noonu la noonu la noonu noonu la professeur Abdoulaye Bathily doon expliqué waaw kay critique yéen a kaay ñëw ak ci gis nga sawaay mhm. ah nañ wax ci lii ñu ngi fooye nag musiba Macky Sall ngi fooye réew mi mook ay nitam Macky Sall heure bii deux mille onze moo doon wax naan Ablaye Wade lan lay doyee armée video bi ñu ngi koy tegaat takk der yi dañoo fekk ñu toog ñu ñu dóor lii ak lii la police doit être quand même républicaine l'armée ah nga xam ne ñoom ñu utiliser ay grenade ay balu fetal la ñuy jëfandikoo ah kon lan la fi armée di def dugg na fii génn fi Macky Sall nag war naa bañ a dugal réew mi ne kii lii jàkka jaa ngi nii ku mën a nodd noddal nee nga yaay roi des arènes yaa mën ñëpp amoon nga cinquante huit pour cent Idrissa fekk si ne la fii nga toog ne donc kon yow quatre vingt pour cent wala plus ci sénégalais yow la ñu àndal yaa xeeti ma laa looy tiit wala. moo tax juge dem li mu jàpp mooy gis nga loi xam nga temps xale. benn booy moo fi waroon ñëw sama woon gars waaye loolu dafa xaw a brisque moom dafa xaw a brutal. ñu ñuy côté nit. waaw. non non non non non. dama lay bañ a kottu nga daaneel ma fii. non non non. dana paasan kot sa loos wi daal lay jël rek. waaw wëndeel. wañ. kott la mu ne ma yow demali yee Abdou Fall mag dama fii lem loos fi léegi maar day taali dégg nga loolu. ko de gis nga ko. mi gis nga expert électoral Ndiaga Sylla mii. Mhm. nee na est-ce que xam nga lan la ñu def république bi. Mhm. gis nga euh, yokku gi. gis nga colonne vertébrale bi. nit bu faatoo rek ñeent fukki guddi buy mat buy mat mhm. ci la yokku gi naan këkk. doo gis ngeen fukki guddi ñu naan nañ leen def ñaanu ngeen fukki guddi mhm. waaw waaw yaxu yaxu na mar gi ki la naan taj rëb waaw gis nga colonne vertébrale gi nii rek ngeen fukki guddi radex amatul ko mi ngi nii gis nga ko le socle de la république ngi nii s'écroule mhm. màbb na nee na rajax ndax conseil constitutionnel lu nekk la def ba mu des wax droit mooy li waa aar Sénégal wax rek leen nay mën a ne de lenn rek mooy mën a ne éliminer Benno éliminer Yewwi mais ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk def ñu ab giraawaali mais lu ñuy xaar Aminata Touré nag jàpp na ne fi nekk nii moom defante œil pour œil dent pour dent Arsenal bu Ndakaaru ci élection député nee na wot boo xam ne day ànd ak jàmm ak salaam waaye itam leer transparence lii la jàngo bi wax suñ bokk chrétien yi makee ngi nii xam nga gis nga li ñu doon wax ci magistrat yi bi yoon la commandement territorial la ko defal une façon de dire euh, faites ce que je veux je fais ce que vous voulez perfusionner administration bi augmentation tous azimuts de salaire le commandement territorial mooy organiser les élections ñu commencé ko ci sous préfet yi dem ci préfet yi dem ci gouverneur yi ñooy joxe autorisation marché yi di ko tere te boobu fekk na ndeyu loi yi joxe na ko bu yàgg a yàgg le quotidien yéen kaay ñëw ak ñun ci hmm. réunion bu tàng bureau parti socialiste ñoo tey nag parce que ñoom nag li leen mitti mooy waaye li leen jëleel ci ay nit waaye ñoom tamit nag ah ay parti socialiste mii ah ay ku jur kii <laughs> ay Senghor bu dekki woon njuufa moom yoonam nekkatu ci yëngee na ñibbisi na hmm? yëngee na ñibbisi na hmm. yëngu mu ngi ci réew mi ne pat boolewul daraa ki coow daa dañ ci ñoom deux mille la pare ci jot <laughs> deux mille ba muy génn naan xaw ma woon ne daggu bër juróom am na ak mbuusu meew juróom am na la soleil nee nañ li mu doon neex neex ci côté nguur gi yépp hmm. soleil bi ñu doon toggal Abdou Diouf ci imprimerie bokkul ak soleil bi nga xam ne ñun moom lañ doon liir te xoolal soleil bi ñu doon liir jamonoy PS moo yées soleil Ablaye Wade moo yées bu Macky tey ndax bii sax léegi la gars yi fa xasalu dugal ci biir ne l'opposition prépare sa marche xam nga li ma la wax dëgg demee dóor fa benn of bu ndaw pour ñu ne moo moo ne euh, journalu état la waaye ñu ngi ñu ngi brève mm-hmm. <laughs> ñu ngi brève kii Ngor si mbay kan tey waaw mais soleil yu Abdou Diouf bi moom xamuloon woon fo ne laay waa dañu ci réew mi moom moom moom soleil boobu te soleil boobu li mu doon gouvernemental ak di état ak di PS yëpp ndeke ñun soleil bañ daan liir bokkul ak soleil bi gars yi doon toggal Abdou Diouf dégg xoola li ñu leen investir ci boppam nee nañ moo ndaw moo tax diggante Aminata Mbengue Ndiaye ak Mamadou Wane Mamadou Wane dafa mujj genn waaw ah, koy les mots que l'église index violence baa ngi ger gaa ngi ak kàcc gi le soleil waroon ngaa continuer abe bi nee na élection yii ñu jëm nañ ko def ci jam ak ci salaam waaye it na leer wàllum transparence lii la abe bi wax waaw yii nañ ko teg ci jàmm ak salaam nit ñi wote ci jàmm ñibbi ci jam waaye it na mbir mi leer mm-hmm. voilà le vrai journal mu ne décision du conseil constitutionnel et si le troisième mandat se jouait maintenant laaj la ca laaj de laaj la ca samp de laaj daal la ca laaj moo tax Barthélemy Dias ca bitim réew gam ne ne coow li coow li nag est-ce que laa ndorteelu xeex baa ngi suba lay commencé suba la suba la suba Macky Sall nag bu bëggee taal réew rek na wax gars yi leen bu fa kenn dem bee passé nee nañu woon dafa am foire bu fa ne foire foire bu fa am foire foiru ñetti nit boo gisee seen baas dañ def place de la nation quatre xar nekkuñ fa ak six nit ñooñu mënoon nañ leen déplacer ci benn terrasse gars yi def seen manifestation bi waaye baax na les écoles yéene kaay ñëw ak ñun ci waa lii tam xew ci stade bi tam doyul waar benn lieutenant gendarmerie GIGN jàpp benn élément wu génie ak commandant ba tëj ca ba commandant ba hôpital la mujjee waa lii tamit waa lii doyul waar ah ah ah koo dóor de ci bopp moom commandant compagnie bi nangu beereem ba nangu téléphone am ba policiers yi léegi dañuy buddee marché bi waa lii waa lii itam doyul waar. ëpp na tool. mercredi huit baa ngi nii de tous les dangers waa Yewwi dañuy xeex waa Benno ne dañuy xeex ak ñoom Serigne Moustapha Sy njiital Moustarchidine wal Moustarchidaty woo na taalibe yëpp woo na euh, euh, euh, taalibe confrontation inévitable. yi dañuy yàpp nit ñi sax. xam nga lii rek lii lii lii rek lii lii rek lu garaaw la. opposition bu am lu leen miti opposition bu leen metti yow nga taxaw naan inévitable yii ak fi réew mi toll nga naan ñu ay daam jóob avancé la <laughs> fii fii laay jël yeewi xoolal docteur Moussa Fall mi exercé depuis 2008 moom it ba tey xoolal médecine illégale réew mi fii la toll réew mi moo toll fii réew mi ngi nii campagne avant l'heure jot na dégg nga dem voilà gis nga Bart. mercredi ngi nii mais mii nii nee na ce sera commencement d'une lutte contre le troisième mandat au Sénégal Mimi Touré nee na defante ñoom it dañoo fas yéene defante. loolu defante ju leen baaxul si ñoom. dégg nga mi ngi nii. c'est dommage quoi c'est dommage. c'est dommage c'est hmm? dommage. c'est c'est c'est dommage c'est très c' est c' est dommage que. temps bee jeex c' est dommage que ñu. day ñëw ci marché bi waxal rek. temps bee jeex. Chérif ma ne. temps bee jeex c' est dommage que ñu indiwaat. te da ngeen fexe ba bu leen ma dagg. xoolal c' est dommage que ñu indiwaat ñu ñu indiwaat ñu ci niveau bu bon bi. mayaat nañ la 3 minutes. niveau bu eh, bon bi eh, eh, may nañ la 3 minutes ay ca. Ndour kooku ndongoli Ndour. <laughs> lu wax. ah dafa war a dem foofu de. waaw ah, parce que ah, organisation waaw. dafa war a ay ay réglage ku leen moytuwul ñu tukkil jamono de ñaar ñii <laughs> ñoom lu mu bon bon moom saf na yàpp le mercredi mercredi tous les dangers ah. kan mooy riposte. <laughs> bébé Y. yow atere. amuñu sax doo doxal yoon. ba pare jaay doole. ñoo la gën a ñoo la gën a xam pouvoir nit ñi bëggatuñ leen usure day am. Mm-hmm. léegi-léeg da ngay nekk ci réew di liggéey sax mais xoola gis nga heure dem bi bu jotee da ngay mujj xomaat mandat de trop moo daaneel Ablaye Wade waaye kenn du ne liggéeyu fi dara tali bu Macky Sall defar rek daa fekk Ablaye nekkoon ca yoon ba mu continuer ko kooku ñu xamal léegi autorité yor réew ni mettee da ngaa war ne siiwa pare yow ba dem merci beaucoup ni mettee waaw may wax mu dem ay décenna décenna loo dese fii ku dee bàyyi fi mëbët bu yeboo nga am téeméeri at kenn daa mën a li lépp xanaa yonent yi bi ñu dee sax nitu yàlla yi ñoo continuer seen mission yi mm-hmm. ak njàngale déggoo ma ne alxuraan ji xob yi lañ mujj jël tegle koo tegle tegle tegle tegle tàmbalee ko laa lay nii ci ci ci ci faatiya gi laal naas geeg falaq geeg dem xulwa allahu départ euh, tëj ko mm-hmm. <laughs> yow nga toog fi daan waa ji da koo defaroon te du ñoom ñi fi mujjee nekk ñoom ñoo ko mujj defar yow nga toog fi naa da ngaa bëgg a matal lépp xanaa kon yàlla bàyyi fi soppee mi ñëpp la rey di di nga dem de <laughs> ah, kii kan la eh stade bi stade bi may ma rek temps bi jot na stade bi tam xam nga lii tam doy na waar stade bi nag barki Dembo Ndiaye lañ ko tabax nit ñi di tàccu naan ay am nañu Santiago Bernabéu am na ñu Nou Camp stade bi ndekete xolal nice guddi mais nañ joxe ex mais nañ interpellé suuf si jëlal ñoom ñoo waxoon hybride la <laughs> eh jëlal fële moo wax ni instant bi. na baax na merci. ñoo eh, waxoon police bi hybride la. nice guddi. eh wuy ma man hybride. loolu lañu wax waxoon. police su bridel bi nga naan hybride. sosi bi a interpeller sur ça. déglu ma déglu ma. experts yi ñu contacté xam lan lañ wax. Mhm. nee nañ càmbar étude bi nga xam ne moom moo waroon dëgg dëgg dëgg moom lañ defal ci estad bi stade bi dañu koo taf tafee. il fallait taf taf après la CAN wala avant la CAN ñu ubbi stade bi parce que Macky Sall guddi yooyu tension politique bi tollu woon na foo xam ni. il fallait coupe beeg stade beeg yëpp Macky Sall am benn fu mu dajee ak booy xool stade bi keroog ñu koy ubbi ndekete yoo stade bi ci ban la dëju. mi ngi nii. suufu suufu jëm un terrain argileux qui craque dégg nga gis nga suuf si ban la bu tàngee ba tàng lorsqu'il est sec. ou xoolal kii gonfle gis nga lii quand il est gis nga bërëb ba ca boppam mooy mooy mooy mooy mooy mooy suufuk ban bu màndee ubbeeku bu maree xar chérif chérif déggoo ma de ñax mënu ca dara mi ngi nii gazon baa ngi nii moom doy na waar doy na waar bu tàngee bu tàngee xar bu tàngee day xar te bu màndee tamit ubbeeku xam nga loolu mu Ablaye Wade dafa tàmbali jam ñaajo jékki-jékki baka waaw Macky Sall ñëw di forcer comme moom day forcer tout le temps ñu ne ko sol gonflant la sol gonflant boo fa tabaxee diir argile boobu day réagir te loolu ingénieurs yi xam nañ ko mais président Macky Sall mooy président boo xam danaan faites ce que je dis dictateur la et c'est malheureux pour ce pays c'est malheureux lu mu bëgg a def lay def c'est malheureux dommage dommage pour nous. waaye Y'en a marre nag nee nañ conseil constitutionnel rek dugal na nag réew mi nag ci gudda xam nga impasse boo ñëwee ba maire bi jaay mango ci bopp koñ bi. wallaahi mu ngi dend noonu ak kuy jaay kii soble mooy borom borom soble bi waaw. gis nga boo tourné boo tourné nii gauche premier koñ après jaay ko soble bi boo tourné gauche rek. Mhm. xoolee impasse la maanaam boo duggee ci miir ngay yem <laughs> kër gi féete à droite mooy suñu kër. conseil constitutionnel fa la dëkk dugal nañ nag réew mi nag ci ko ñu jaay kotu soble bi boo tourné mbëkku impasse fa la ñu dugal mu ngi léegi nag conseil constitutionnel nii dañ koo war a taal sax benn yoon nag nit ñi noppalu waaw wala déet am satu so si di bee nee waaw parce que dafa politique ba mu ëpp te nag dafa doy nag waxtu yu jot na nag ngir ñu indiwaat beneen cours un mythe s'effondre wuyu ma mythe mythe mythe laa leen waxoon ma ne leen mooy mbóot moom mu yàlla di def nga xam ni foo romb merci beaucoup daanu na maître Assane Dioma Ndiaye ko wax ndeka si laa ngi nii nee na dindi ay opposant mais lii coup d'état la à la démocratie professeur Ngounda Mbuub nag nee na gis nga waaw gis nga kii di Antoine jom ak ak ak conseil constitutionnel mhm. ñoom mais ils doivent des explications et des explications précises war nañoo gindi say baana sugu nag lim jàpp